ñëw leen ñu dem Medina Ba. bismillaahi rahmaani rahiim. sallallaahu alaa sayyidinaa Muhammadin wa alaa aalihi wa sahbihi. mbokku jullit yi mbokku taalibe yi mbokku soppe yi. Yamoussoukro TV Sénégal. amadi sante borom subhanahu wa taala way ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ngi leen di nuyu nuyu lislaam te mais assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatu gannaaw nuyu moo ngi ndokkeel suñu bopp te di ndokkeel umma islaam yi ci shahru mubarak muy weeru rabiul awal weeru yonent bi alayhi salaatu wasalaam weer woo xam ni bu tere su woon Mawlana Cheikh daal na ndokkeel bopp ci weer boobu ni muy ndokkelee boppam nag mooy mbégte gi mu am ci weer wi ak weer wi def mu ko def boppam jàpp ne weer wi daal weeram mais daan na tukki nag yenn ay tukkeem lu muy sori sori daan na wax ni qalbi dawaaman بمدينة أرغب شهر شهر الحبيب إذ أراه يقرب ولا الشيخ دال voyage ki voyage mi di wax ni sama xol ni aju medina ñu ne ko amale na cheikh sa xol bi moo lu tax ma aju medina min a shahr al habibi weer soppe wi id arahu gis naa ko yàq ko mu ngi jege si loolu moo tax daal sama xol bi mënatu nekk ci àll loolu yàqal na ko feneen ومولد الشعب وعني وقدنا ربيع غير الناس من واي واي ويرك ربيع ربيع غير الناس ويرك جنت مدي في دال جيجسنا من كعب مولد الشعب ويرك جنت مدي ميكن من بهجة النفس من بني إلياسي ومي تارك دون بكن سما مي تارك دون سما واي ينتو ودال من قمنا مي غير الناس من يبقى كتبني إلياس صلى الله عليه وسلم وتغن من عم محمد سليل عبد الله إنك عمل لست عن تعظيمي بالله من عم النت ما لين بيلو كل بكم أي وحني ويرم جيسنا ما ينتبه عليه الصلاة والسلام ما محمد دومي عبد الله نعت بايم من تدو عبد الله من وايد بيل كل يعني يجيب بحكم دنيا وحنا جم بيد على maa ngi leen di tontu di wax ne gàmm daal kuy wax bi daal da nga jàngut da waaye wala tu man xam ne damay fooye ñàkk gàmm na man damay gàmm de ndaxte dañu xamul luy gàmm na moo Abdullahi ibn Abbas kooku moom ay moo yonent bi alayhi salaatu wasalaam ay maga rakkale ndaxte rakkale ji yonent bi alayhi salaatu mi jëro Abdullah ak yonent bi alayhi salaatu salaam bàyyam di Abdullah ñoo bokk benn bàyyi Abdul Mutalib mooy seen bàyyi kon Abbas Abdullah ibn Abbas frère yonent bi waaye mu ngi denc nag tantam bu ñuy wax Maymuna bintu Xaaris Maymuna moomu moom ak yaayam bi jur Abdullah ibn Abbas ñoo bokk benn bàyyi Lubaba bintu Xaaris mooy ki nga xam ne moo jur Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu moo mën a moo firi laay wii may bëgg a jàng moo leen di ci am ne ñu ci bëri na dañuy jàngu rek dañoo xam ne alquran wax ji bëri na waaye dañu dañ dañu réere na àq yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo waral ñuy wax ne gàmm daal bidaa la sax waaye Abdullah ibn Abbas nee na qul bi fadlillahi wa bi rahmati fa bi zalika falyafrahu kooku alquran la Abdullah ibn Abbas mi ne ah nañ dellu ci ay ay woowu rek mi ne alquran ويوحنا بفضل الله وبرحمته نكوكا الفضل كوكا العلم وي خم خم برمي سبحانه وتعالى عبد الله بن عباس مكوي فينا كم كوك ما يحب الأمة تي إن تبع عليه الصلاة والسلام موكو جان موكو نيان نعلا مفقه في الدين وعلم التأويل من وين وين نقول دبلو دينك تي إن تبع عليه الصلاة والسلام دينك كم يلا بوجا أنجرين تبي دبلو دينك من يريد الله بغير يفقه في الدين كان عبد الله بن عباس نقول ما يبرع القرآن وكما يحبر الأمة ما يفود أموي وكعب ينتبه عليه الصلاة والسلام وكوعة عبد الله من واي وبرحمة دينة من عير ما عندك يلا من عدل دلن ما ينتبه عليه الصلاة والسلام كن القرآن ما يوعني بكي ينتبه من عمولنا شيء من عكنا ورنجام ورنجام نتعطي القرآن مونه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا واي واي بيجلن جنون لي كون مكتيك يالا كوكما يلنتي بي عليه الصلاه والسلام عبد الله بن عباس من درجه تماغنا رحمه الله تي مو يلنتي بي عليه الصلاه والسلام درجه نكاي ماك تي القران كو يخال سي وما ارسلناك الا رحمه للعالمين من القران كو يخال تي يلنتي بي عليه الصلاه والسلام دان وخني انما انا رحمه مهداه من عمن كذب may cadeau yërmande woo xam ne dañ maa sànni ci yéen rek mi ne ah, kon man noonu laa mel rek man yonent bi alayhi salaatu wasalaam te alay abdallah bi nga xam ne mooy baay mooy doom ci Mawlana Cheikh Hadji Ibrahim Niass radiyallahu anhu ñi nga xam ne mooy tawam waaye kulli xaal am na ay mag yoo xam ne daal ñoo ko fi jiitu woon teel a génn àddina nag waaye man man nañu wax daal Hadji Abdallah daal mooy tawam Mawlana Cheikh gannaaw ba nga xamé na ay magam jitu nañ mom nak mo moo mo Mawlana Cheikh lan moy gam kon al mustamil wal mustamiat ji Top Info TV Sénégal ma ngi leen di wax ni jël leen ak information wo xam ni maa ngi ko jëlee ci ko mo Mawlana Cheikh mo tonto doma Haji Abdallah muy interpréter lan moy gam mi ne ñu bëri dañu xamul luy gam rek waaye gam du dara lu do lu do waxtaan ci diine woo xam ne tataqallaluhu al amdaax loolu nga ci biirat nga def ci ay am daa dugal ci ay tagg mi ne lii rek mooy gàmm mi naa ah, gàmm daal du dara illa bi illa hadisun fi diin tataxallalu am daa mi naa ah, lii rek mooy gàmm kon al mustami'un wal mustami'at ci info ci Top Info TV Sénégal maa ngi leen di ndokkeel bu baax ci teew wi ngeen teew pour ñu waxtaanee li aju ci gàmm wa taxoon moo leen di Cheikh nag moom daan na la ne laaxar rabiu wa zaat anni l kurabu وحاجة تزكار من علت له رتب حب البشير النذير المصطفى وأبوه أبي, أبي الخلائق من زال في الريب من عمود الشيخ من واي واي لا يا ربيعه ما ربيع الأول من عفيرك ربيع الأول ده اللي فيني من عمل الشيخ بوير زينة لخو من وزع الدمين عدني كمان القروب سمن جاكرة سمن جاكرة دال دم ومو وموخي اللورد ومني الخليفة محمد دفكر دلتنا نكا عاصم ركنا الوحنا دك نعطي وير وونا نغي وحنا نفين من دفع ورس القلب صفوان بعد ما كديرا من واي واي من سمو قلبنا ويرو ربي الأول وينا وحنا ديال دفا فين دفا دمي كيو عن جاكري من دفا دنلو سمو قلبي أكسل جنا بمنغي من سمك حاجي محمد القليل يو سمرك على حاجي إبراهيم وحنا دك gis nga neen mag ñi noonu lañ doon bindaante moo tax ba mu waxee loolu rek magam alaaji Mouhamadul Khalifa loolu la ko tënk moo tax mi ne fa awradal qalbu safwan baadama kadira moom la di seex ni mi ne waaye yemut nag ci dindi ak njàqare sama xol bi rek waaye dafa jeqi na taskaaru man fàttali nga xam ne alal kawen teelawu ñeel na ko arutaba daraja moom yonent bi alayhi salaatu wasalaam mi ne kooku may kan nag mi ne xib bii kooku may sama soppe al Bachir kooku may bégale képp fu ko xam ne daal way topp yàlla la mu bégal ko àjjana ba nazir mooy aji xutbe ko xam ne daal aji jajjulo topp yàlla mu xupp ko ngir lan mu mën a na dellu topp yàlla subhanahu wa taala ñu ko ah kooku mooy kan nag ki nga xam ne al bashir al mustafa kooku mooy ku ñu tànn ki waaye abu abil xalaayik mooy bàyyi bàyyi mbindee fi an saadat bi bi ribu mooy ki nga xam ne moo demee ak sikkinat moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam المستمعون والمستمعات جي تابعين فون تي في Sénégal da nga leen di dokkeel bu baax ci mutaabaa bi nga xam ne yéen a ngi koy mutaabaa ak ñun ci waxtaan la aji ci gam waaye nag moo leen Cheikh dafa bind benn lettre woo xam ne mu ngi ko bind ci fukki fan ak benn ci weeru safar ci la ko bind mi ne maa ngi seede nag di xam la ñu bari ne dañu taxawee wut xaq yonent bi alayhi salaatu wasalaam xamuñ ko sax loolu moo waral ne ci si bëri nag mi naa ñuy wax naan gàmm nangam laak wala nangam nag dañu xamoon xaq yeneen bi rek waaye fi ñu ko xamoon duñu wax li ñuy wax lépp nag duñ ci wax dara waaye dañ ko xamu nag malgré xamuñ kan mooy yeneen bi alayhi salaatu wasalaam waaye bi ñu ko xamoon nag li ci bëri nag duñ ko wax mi naa xanaa xamu leen dafa am bi ñu ko ñu wax xaafis Shamsuddin Muhammad ibnu Nazir ad-Dimashqi mi naa xamu leen bu fekkee ne abu abu lahab alquran moo ko ŋaññ واي قسكو جي سورة سورة المسد مي تبالي دا أبي لحب من واي واي دي أبو لحب مي قمني إير بو يوم الإسنين جتي من عادنين كو واي فال نير كونتان جيمو كونتانون جي فوي با مي قمني موي دك موي نيو نكو آمنا أمنا دوم سفرر ويدان أمنا دوم وغور من عواي مو كونتان با مو كونتان با غريل فوي mi ne waay waay kontaan googu ren Abu ah, Lahab kontaan noonu ci juddu Yonent bi mi ne waay waay ci lañ koy woyofale ak mbugal mi ne waay loo xam ci waa joo xam ne dafa juddu gëm Yonent bi waaye di bëggee Yonent bi gàmm du ko mi ne ah, kon kooku loo loo jéem a xam ci xaymaam ak ngëneelam ak tamit doyam ci mbëggeel ak Yonent bi sallallahu loo xam ci loolu bu ko xaafis may wax mi ne ida kaana ada kafirun jaa zamu بتبت في الجحيم مخلدا حتى أنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه لسرور بأحمد فما ظن بالعبد الذي طول عمره بأحمد مسرورا ومات موحدا وكو حافظ سمج الدين للوح من إذا كان بنك هذا كي كافر دي يا عدك نزمو أن نانيم ناني القرآن يقول بتبت يدا أبي لهب وتب ما أعنى عنهم عدو ما كسب تي موم أجي نكل جحيم من واي واي أتى عنه في يوم اثنين دائما يخفف عنه للسرور بأحمد من واي دفاي ñew nak يوم اثنين bu jot dinañ ko wéyfal ak mbugal ngir bég gi mu bégoon ci jottu yonent bi mi naa loolu rek moo taxoon ñu koy wàññil ak mbugal ci bés woowu noonu mi naa kon fa maa zannu ana lan nga jot bi abdin ci jaamu woo xam nii min àll ji wi nga xam ne tuula amru diiru guddem yëpp na diiru dundam yëpp masrurun aji bég la bi ahmad ci ahmad te wa wa maata mu waxada waay waay deena na ak li nga xam ne mooy gëm yàlla mi ne waaye kon loolu njortu ci jàmm maa ngi ndokkeel ñi xam ne yàlla may na leen tawfiq ba ñu xam dayoog yenent wi ko ñoom foo leen toll màggal juddu man daal damay wax ni mi naa doy na sama wax ren ma wax ni rus naa ak kersa bu ma jàkkaar la yonentu yowmal qiyaam ma wax ko ko man kat daan naa tere sa umma wi ñu bañ ci yow mi ne waay waay lii ret man am naa xeres woowu la ba duma ko def mi ne waay waay kere yowmal qiyaam daal man a yonentu bi man bokkoon naa ñiy tere sa xel wi ne leen bu leen di gàmm bu leen bëggee yonentu wi mi rus naa ko xeres naa ko waay waay kon nag nañ xam lan mooy day ak yonentu bi al mustami'una wal mustami'at Top Info TV ci Sénégal maa ngi leen di ndokkeel bu baax ci waxtaan wi nga xam ne yéen ko ànd ak ñun ci waxtaan wi li waaye damay fàttali leen mbokk yi moo leen Cheikh bu gàmm jotaan nu muy taaroo ak nu muy rafetee ak ni nga xamee ne moom lay am mbégte ci juddu Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yóbboo na yóbboo na ko sax muy wax ni wahal yata wahal yata حب غير محمد فحب سوى الماحي العمايل والفسق kooku loolu la wax mu ne waxal ndax it attaa dina dikk bu bëgg xeyru muhammad ku di yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ne waay waay loolu daf koy laaj laaj kooku waxal istifham la dafay laaj mi ne ndax nit mën nay ñëw di bëgg keneen ku di yonent bi di présenté wu ne man kat mën naa bëgg keneen ku di yonent bi mu mel ni dafa am ku ko wax ne ko ah loolu man na def naa ko man de bëgg naa keneen ku di yonent bi bàyyi ne ko kaw téef فحب siwal maaxi alamaay wal fisqu mi ne bëgg ku nit maaxi kooku ak ngumbal waaye ak kàccoor kooku Mawlana Cheikh loolu wax mi ne bëgg daal ku nit ima ku nit yenent bi kooku ak ngumbale rek waaye génn ak topp la wax na feneen na alayka salaatullahi summa salaamu fa ayshun biduni xubbin fiika mudayacu mi ne waay waay alayka yéen a nekk si yow salaatullahi julli yàlla summa salaamu ak sëlmalem te alquran loolu yaxal na ko ولكن مالشيا لب لم لوارد القرآن فكنا معدج القرآن من إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما تيبو يلا جلو تنجين انتو درد سوتنا فتون مولانا شيخ دواني عليها صلاة الحق بالحق وهدها لألا تكون بطرها من عين مواسك مولانا شيخ من فعج دند بدون حب جلو تبين مبقل فيك تيو ينتبي وكده مضيع dund bu ñu sànkal la bu ñu nenal la boo xam ne yàqu la nag mu ne kon nag damay wax na daal waxal yata atta xubbu xayru muhammadin wa xubbu siwal maaxi al amaayatu wal fesku wax na feneen nag ci mbëggeelam ak yeneen bi jéggi doyo gi mu jéggi doyo tax na muy wax ne widaadun safiyun lam yushab bi siwaa'i fa xubbu siwal maaxi dolaalin qabixu loolu la wax feneen mi ne man de cofeel gi ma am ci yeneen bi cofeel gu sell la woo xam ne dara raxu ko dara jaxasoowut ak moom dafa weex tàll set wecc bay amul benn jox lu mu jaxasoo mu ne waay waay fu xubbu si waa maaxi dolaal yi bëgg ku dul maaxi mi nga xam ne mooy aji effacé ak réer kooku xabiixun ak mbon la gis nga moom foofu la tolloon ci mbëggeelam ak yonente bi alayhi salaatu wasalaam damay wax ne day na ret ma indi wax joo xam ne moom radiallahu anhu moo ko wax moo li mu wax ne من أعكل إن صدني عن قبر أحمد سربق وما صدني عن شوقه دهر فرسق أما لولو ديك مبقلي ينتبه من اللي إن صدني نيم جار نتمن من عن قبر أحمد جي قبر ينتبه صلى الله عليه فرسق ولا سربق أي كيلومتر من وعي وفكينا xabru yonent bi alayhi salaatu salaam ay kilomètre moo ci dox sama digganteeg moom mi ne waay waay da nga xam ne fama sadde nii gàllankoorun ma min an shawqi ci cofee la yonent bi addaru diita jamono farsaqun benn kilomètre na laa wax cofeel gi ma am ci yonent bi daal moom dara doxut ci nag ndaxte mooy ki muy tagg léeg-léeg ndaxte wax ne fama qataru fi sharqi wal garbi fatfadan ila makkatan illa li chammi zazai ba mu waxee wax jooju nag wax ji kawe na dina am ñenn ñu ko dégg dina am ñu ko déggut bu waxee ne fa maa xattoo daggu nag fi sarxi ci penkoog xarboog amul kenn ku fa jógee koo jëm màkk na loolu man sama xet wi la ñuy xeeñcu nag wax jooju du ñëpp ko mën a dégg waaye damay wax ne rek ñi nga xam ne ñoo nekk ci connexion bi bu fekkee ne da ngay am looy téléchargé te yaa ngi connecté Tigo wala ngay connecté Expresso ak kii nga xam ne dafay connecté li nga xam ne mooy Orange du ñu doon benn sen téléchargement yi fay gaaw mina bu fekke na sa téléchargement gaaw na li yedd ken yeddal sa bop mina mawlana cheikh mine lo ret lay wacce degré bi ne walim la pourquoi ça wa ayni al yawma aynu muhammadin sarasiru fi haykali urwa'i mina pourquoi ça ndata jemi tay sama moy jemi muhammad woowu mina kon nat kon yi dem màkka wur ken man ra lañu ñu dana taxaw ci arafa di wax ne waqaftu yowma thulatha bi arafa أذكر ربي abdi askuru abdi rabbi zikra abdi arafa aw kama qal mi waay waay waqartu yowma thulatha bi arafa maa ngi taxaw bésub mardi ci arafa waaye maa ngi tuddug tudd yàlla tuddug jaam bu xam boromam mi ne ci loolu laa nekk nag kon maa ngi foofu noonu ci arafa kon ñu ngi ci waxtaanu gàmm lu ci aju ak tamit ngeneelu gàmm ak Mawlana Cheikh li muy soññi nit ñi pour ñu jéem a toppatoo li nga xam ne mooy gàmm رضي الله عنه kon al mustami'u al mustama' ci Top Info TV Sénégal maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ndokkeel bu baax ci déplacement bi nga xam ne yéen a ngi ko déplacé ñëw ba ci ayu Faché Amadou Tidiane 2 ngir ñu bëgg a fàttali lenn ci ay mbokk li nga xam ne mooy gàmm ak Mawlana Cheikh naka la doon dundee gàmm incha allahu maa ngi wax ne daal nañ ñëpp bàyyi xel dellu jëm màggal yi du yonent bi alayhi salaatu wasalaam daana wax ne man de gisuma kenn koo xam dafa ñàkk wala mu am gàllankoor wala mu am raflet paas ba taxaw mu wax ne du ma dem gàmmu ji ren bi naa loolu bu mu tere kenn ñàkk gàmmu ji ren yéen ñëpp dem leen gàmmu ji ndaxte bu ngeen taxawee ci buntu yenent bi tey mooy buntu yàlla mi ne kon amaan na seen soxla yëpp dina faju ndaxte la chakra mooy buntu yàlla ndaxte imaamu Junayd loolu la ko wax anta baabul ilaahi ay yumri in wa afaaka min gayrika laa yaduqulu alhamdu awwalu daawaana wa axiruha والحمد لله من حين إلى حين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته